asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki internet yi maa ngi leen di jaar bu baax a baax di leen bëgg di kontaan ci yéen di leen ñaanal jàmm si kaddu gi seen mbokk seen xarit Aladji Malick TV gërëm leen sant leen ànd beeg ñun topp gi ñu ngi koy gis bu baax a baax yàlla yàlla defal leen jàmm suturaal leen sama gars yi ne ci tool yi maa ngi leen di bëgg fi mu toll nii yaakaar naa ni faru naan ba pare ñiy jëmbat ñaam bi daanaka jëmbat ñaam bi ba pare di yàlla sunu borom nag taw ba taw féex nag mu ñëw gàncax gi mën a jëm ca kanam Sénégal jariñu ci ma commencé ko ginnaaw bu ma sàkkoo ci yéen abonnement yi jégglu ci loolu ndax man kaw kaw laa damay tàmm yooyu. Euh, ñu jégglu ci loolu abonnement yi ngeen euh, ba dabar ñu ko bu baax a baax maximum de partage ci sunuy vidéo ñu commencé ko xibaar yu am solo yi ak kii la de presse avant muy dajeek Milan AC match boobee ma ngi amee fële ci États-Unis ngeen di gardien la ci Real Madrid di deuxième gardien bi bu ma ñu doon jàpp ni sax Paradji génn équipe waaye fi nii ay mbiram mën na si jàpp ni njaw desandi new xam bin ci li nga xam ne mooy googe des départs ndax bu ñu sukkandikoo ci kii di euh, Carlo Ancelotti di entraîneur nga xam ne bokk na ci gën a euh, ci àdduna wala ngal kàpp tey nag doon na jàkkaarloog taskatu yi nga xam ni ñu ngi ci àdduna wala ngal kàpp ki nga xam ne moom mu jëjal Ligue des Champions na ni effectif bi nga xam ni Real Madrid yor ko bu fekkoonte ni toolu mango la gars yi ñag nañ ko fépp tayit yaakaar naa ni wutal nañ ko ak taxas gu mag gi ne ci bunt bi pour ku ñëw du mën a jàll maanaam équipe bi amul dem amul dikk amul euh, bousee centimètre loole nag li tax mu xam la ne ko damay expliquer loolee benn mooy équipe bi nga xam ne am na ko footballkat yëpp jàpp na ni bëgg na noo toog maanaam seen xol ak seen xëtër lépp ñi ngi ko jël jox ko équipe bii di Real Madrid beneen bi ci des mooy xoolunu ci biti ñoom ci biir rek la ñuy xool kon loolee di am misaal bi ci des nag di ñetteel bi mooy ñi nga xam ne nag ñooy gone mere merengue yi nga xam ne mën nañu jiital président bi ca kaw moom it am na yéene ànd ak ñii ci liggéey bu mucc ayib ci saison bi nga xam ni moom lañ dëgmal tey liñ doon soxla yëpp ci poste yi yaakaar naa ni daa bari ñu ko bu baax a baax kon Carlo Ancelotti a euh, ñu ko déggee lépp tawféex ci moom ci lii la di équipe bu Real Madrid bi nga xam ne yaakaar naa ni euh, gundaan ndaat nan lu neex a neex tey nag match ba ñi koy waajal match la dina nekk bu am solo xam naa euh, fii ak ci xibaar yi timis ci dikkaat andi ci information te ci Aladji Malick TV ko gën a ñel bu baax a baax ci li nga xam ne mooy gëstu yin leen di faral di def dañ koy continuer nag ak Rio Ferdinand Rio Ferdinand mii nag képp ku ko xam xam ne woon défenseur boo xam ne sax yenn saa yi mu alawti ko dem ca milieu terrain ba euh, Manchester United la doon football ak équipe nationale bu Angleterre moom nag gone bi ay kaddu euh, am na ci droit maam jëkk ba ni euh, club bi wala joueur bi mooy joueur bi nga xam ni moom la jàpp ni adduna wala ngaan kàpp bu fekkente ne am naa ci joueur préféré moom laay gondaandaatal mooy kii di Vinicius Junior kon kii la di Rio Ferdinand alloué na ki la nga xam ne moo nekk Vinicius Junior kon fansam la te it ku ko sopp la ci wàllu football ndax na muy doxalee maanaam moo am solo te it kii di Rio Ferdinand wax naa leen ko léegi du n'importe qui ci wàllu football mondial ndax ko xam Manchester United fële ca Old Trafford képp koo xam ne yàgg na ko toj yàgg toj ay jamono yàgg toj Angleterre bay jàngal gone ay football jamono ji nag mu nekk ab consultant bo xam ne jàmbaari fàkk te da la donte am na licence su course fu ko neex ñoo nekk ca réewum Angleterre jóge ca réewum Angleterre waaye bu ma fa jógee du ma sori loolee di Europe damay dugg Europe nag dem ba fële nga xam ne moo nekk UEFA su ma demee nag damay dem toog fa ci siège ba xam ni ba am na bu ci ne Monaco foofa laay toog lan fay defee ay signature foofee ca Monaco bari na su ma demee damay dugg fëgg koŋ-koŋ gaay ubbil man ndànk nag ma dugg ci biir waxtaane yu yees feq nga xam ni andi nañ ko ci taabal ji loole ñu njëkk ko nag ak tirage sub Ligue bi nga xam ni euh, fii ak ay semaine euh, tirage boobee danañ ko tàbbal ci taabal ji taabal jooja nag nanu koy defee nag gars yi du ñu toog am jub andi njaay gars yi naan buli tàng yeeg buli sedd yeeg loolee lépp ndekkete yoo ah, waa UEFA jeexal nañ ko fi ndax jàpp nañ ni loole ñu bari ñu ngi ciy andi ay jafe-jafe di wa dajeeg di wëru woon ak dajeeg moom dañ koo lijjanti dañ leen a jàppale bañ demee ba njort ni nag loolee am na problème pour ndaw a ah, ci seen digganteeg ñi nga xam ne ñooy acteurs yi football yi ñu ni léegi dañuy indi ay machine du installé ci ay logiciel ay logiciel yoo xam ne yaakaar naa ne dañuy toog fee di naan seen ataaya bu yi seen tirage bu ko defee ñu mën a am euh, tirage bu neex mucc ayib te jaar yoon dégg jàmm tew feex ñu ñaanal leen ci jàmm loolee nekk ak réussite ndax bu njëkk la euh, ci wàllu football mondial football mondial nag danañu am gan am nañ ko ba pare sax gan googee mi ngi jóge fii ci ñun ñu kontaan ci lool di Lamine kamara mi jóge ca Metz euh, dem fële nga xam ni euh, daanaka moo nekk ay ASC Monaco wala boog mu jóge euh, ci Denis Biram Ndaw bu génération fut gars yi jàngal ko football ba mokk rumbax nag mu dégg jàmm ànd gondaan daata gone yi nag ba fële nga xam ni daanaka mooy FC Metz ba mu demee nag coppate bànneexam ak mbégteem mbégte moomee nag daanaka tey jii moo ko topp ba ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi yëngu ci wàllu football di ko savouré bu baax a baax gars yi nag dio bi wala triple bi dina ma neex lool sama waa ji sama xarit nga xam ne dégg wolof danaa leen may ci vidéo am ci njeextalu xibaar yi moom kii di euh, nga xam ne mooy Ismaïla Jacob beneen bi ci des ci pegg ga mu am fa Krépin Diatta moom it sama xarit bu ma neexee njeextalu xibaar yi ñaari vidéo yooyu maa leen koy ñaan di leen may bu baax a baax euh, ci kanam euh, tuuti bu xibaar jeexee ngeen xaar ko incha allah waaye ñett ñi kon danañ ànd uh, fële ca Monaco di fa gondaandaat gars yi uh, invité Aladji Malick bala noo continuer xibaar nga xam ne yaakaar naa ne Babacar mi yor wàllu làmb fii ci télévision bi dimanche bii di ñëw ñu bàyyi loo ko xel dimanche uh, ci ngoon bu vingt et jotee ci li nga xam ni mooy cent pour cent làmb bo ci a Boy Jaxaaw di jàmbaar yi fàkk tëdd nag nga xam ne yàgg naa bëre Dakar di fa am ndam yàgg bëre fii Thiès di fa am ndam mu nekk moo xam ne mu am solo la ñëpp di ko bàyyi xel kon loolee lu fi jaar dina am solo bu baax a baax mën ngeen ko suivre sax en direct en exclusivité même bi émission bi jeexee mën ngeen a jàpp booy jaxaw ak Babacar émission 100 pour cent lambu désormais à partir de dimanche tous les dimanches euh, ci seen télévision bii di Alhaji euh, Malick TV Sport gars yi beneen bi ci des nag ñu gis ni ñaar ñi nag xaw na noo déggoo te yaakaar naa ne duñu nekk sax di bokk euh, di wala bokk euh, heure buñ waree def équipe bis ñoom ñaar ñooy nekk leader technique yi nekk ci milieu terrain bi wala ci attaque gi kenn ki ngeen ma koy laaj mooy Brahim Diaz moo nekk ci seen côté càmmoñ di ab sueur boo xam ne Maroc la fekk baax waaye baax nag ma ngi ko fekk Espagne ba jamono ji may waxee sax déggoo am na ba équipe bu Maroc bi bu ko neexee ñuy gondaandaat bu baax a baax keneen ki nag Turki xam nga ni Turki ku ko xam-xam ni ni bu yàgg mën a football yéen a ngi fàttaliku jamonoy 2002 la ba nga xamee ni éliminé nañ Sénégal élimination boo xam ne lu ñu bari fa lañ xamee équipe bu bii di euh, Turki boobee day am solo bu baax a baax ci li nga xam ni mooy ay joueurs yu deuxième mi-temps lan mag jéggulu nag bu fekkente ne amul équipe bis ñii ay joueurs yu deuxième mi-temps lan loolu xam naa ni sama gars yi ñoo ko gën xam bu baax a baax ndax yaakaar naa ni militaire ba fi ñu bu ñoom ci waa minute ñëwee ah, ci bu tooy Fede Valverde ñëw ah, kii la nga xam ne nag ah, moo nekk kii di international Euh, bile nga xam ni euh, moo nekk Angleterre di Jude am moom it taxawaay ba nga xam ne war na ko fa am yàgg na gars yi coow li nag bari na mel na ni Nico Williams ak Barça léegi kii nga xam ni yaakaar naa ni Napoli képp ku leen xam ni xam ni ayuñu ci jaay ab joueur yaakaar naa ni war nañoo wut koo xam ni ko xam mbirum jënd ak jaay la mu rek leen leen yi ndax Napoli dama ko xaw a yërëm tuuti ci jamono yi euh, Kalidou Koulibaly bi mu tolloo ci digg million doole ci digg dooleem gars yi daal di koy fay cent vingt millions bu doro ci diggante Barcelone Real Madrid man Manchester gars yi ne fa di font di caaxaan ba mënuñu koo jaayee lu romb 30 millions d'euros matul sax 30 millions d'euros lanu mujj jaayee kii di Koulibaly lii nag damay ragal mu yóotu ci ki nga xam ne ah, moo nekk kii di Victor Osimhen fii mu toll ah, ci jamono yooyu juróom benn weer ci ginnaaw buñ ci laajoon 130 millions d'euros kaas-kaas gars yi danañ leen ko jox waaye gone fii mu toll nag affaire yaa ngi commencé jaxasoo ndax moom jàmbaar la waaye cote Erling Haaland ñoo yor li di bës bi kon daanaka fi mu toll nii lu ñu mën a gaaw def Arsenal mi koy bëgg nañu ko bañ a dal te jox ko Arsenal ñu suivre vidéo yi te ñëwaat. ki nga xam ne mooy Ismaïla Jacob mu doon ji ma wax wolof tey di ngeen ree ba sonn Aladji Malick TV jàkkaarloo na ak moom ci interview boo xam ne daanaka yàggul dara waaye gone gi lépp loo xam ne xalaat na ko ci wolof. ak palaa ba nga xam ne moom la bëgg di ko añee wala mu koy reere bis bu ne fii ci réewum Sénégal ba ko ko Ismaïla Sakop ci micro Aladji Malick TV gars yi ginnaaw bu ngeen defee seeni i abonnement ah, loolee dana am solo bu baax abonnement yi ngeen mën koo dàbbar ñi di ko coppati ndànk ndax vidéo bu dugg ngeen mën ko am kon Ismaïla Sakop ñu bàyyi ko ak li nga xam ne mooy waxtaan woowee ñu séq léegi nii. gars yi mbégte lay doon ci ñun nekk mbégte. lan ci wolof. ci nepp mais ngi Sénégal est que xam nga euh, Mafé. maafe ci lem turo mais suppu kanja nag xam nga ko mais sii dafa xam suppu kanja <laughs> mais damay laaj rek est-ce que gars jox nañ la fi suppu kanja oui wala non ah mais léegi kooku suppu kanja Ortus, ortus suppu kanja kaj. To su angarišta na Sini la fi sandis la fi jël mais boo match gagne vraiment euh, ñëpp kontaan nañ ci yéen quoi boo match bon voyage. ok merci. lan nga dégg ci wolof. ci nepp mais yaa ngi Sénégal est-ce que xam nga maafe. Euh, maafe. ci lem mais suppu kanja nag xam nga ko. mais sii ni dafa xam suppu kanja <laughs> mais damay laaj rek est-ce que yi jox nañ la fi suppu kanja oui wala non. ah mais léegi kooku Otuz, otuzu bakan yakar. Ve son geri işte okuyun. Ah no. ah Sandis ah non Sidi nee na Sidi Gaye nee na Sandis la fi Sandis la fi jël mais boo mat sa gaañ vraiment.